waaye war cee def ay taxaw seetlu taxawaay bu jëkk bi mooy noddu ana yan baat lañ ko ubbee ñu ngi ko ubbee allahu akbar yàlla yaay ku màgg ki yàlla yaa màgg bi takbiiri ci kàbbar yàlla màggal ko tabaraka wa loolu nag lan lañ ci war a jële mooy yow mi dégg ñu ne yàlla mooy aji màgg ci mu dugg say nopp ñu ne la yàlla akbaru min kulli shay moo gën a màgg lépp wa azamu min kulli shay moo gën a rëy lépp wa annahu alqadiru ala kulli shay moo àttan lépp loolu dugg ci sa nopp yàlla gën a màgg li nga jàpp yàlla gën a màgg ki nga jàpp yàlla gën a rëy li nga jàpp yàlla gën a rëy ki nga jàpp allahu akbar moom yàlla moomu moo mën lépp keneen koo gis walla leneen loo gis tële na waaye yàlla moom ala kulli shay'in qadir lépp la mën baat yi doomu ndey bi dugg ci sa nopp nga dégg ko loo ci wala jëleeti mooy fala yushghiluka shaaghil an ijaabatihi kon amatoo lenn lenn ci sa dund ci waxtu woowu nga déggee baat yooyu ñu la ko ñu la ko woowee ne la allahu akbar allahu akbar dara waratulaa soxlawoo dara waratulaa occupé waratuloo jàpp loo jàppoon wala koo jàppoon war nga ko teg wuy ji sa borom mbokk jullit yi ab jullit mënta ñàkk yàlla boo ñàkkee yàlla alku nga loo am bu dee yàlla la perto soo amul yàlla ñàkk nga torox nga loo am bu dee yàlla la perto dara loo am bu dee du yàlla amoo dara mbokk yi nga yëg ne yow jullit boobu amoo pexe amoo kàttan ku dul yàlla tabaraka wa taala su boobaa bi nga yëgee loolu dinga nga mën a toroxlu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala dugg ci ndox mi jàpp wuy ji sa borom tabaraka wa taala loolu mooy taxawaay bu njëkk bu ñu war a taxaw ci baati nodd ñaareelu taxawaay yaa ngi wax ci nodd bi ashhadu an laa ilaha illa mu nekk baat yoo xam ne kalimatu tawxid baati kennal yàlla yàlla mi nga xam ne moom dong lañu war a jaamu te jaamu googu moom mooy àq yi yàlla am ci ñun waru ñoo jaamu kenn kuddul moom ginnaaw ba nga déggee say nopp yàlla màgg nga dégg moom yàlla moomu moom dong lañ war a jaamu nga seede ne yàlla moomu moomu kenn la waruñoo jaamu waruñoo dendale kenn ak moom ci jaamu giñ koy jaamu tabaraka wa moom kenn mu nekk ay baat yoo xamante ne boo ko seedee ci sa mujjantalu dund dugg aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne képp koo xam ne sa mujjantalu baat maa min abdin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illaa xaramahu allahu ala annaar képp koo xam ne sa mujjantalu baat ci àdduna mooy danga kennal yàlla seede ko moom kenn nga seede ne muhammad ndawal yàlla la yàlla ko yónni yàlla dina araamal ci sa yaram safara mbokk jullit yi bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu xabaaral lii moo ñu ko bégal moo nañu képp kuy faatu nga seede ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni yàlla araamal na ci sa yaram safara doomu ndey yi mbokki jullit yi baat yi kon saa yoo ko déggate ngay nelaw war ngaa yeew saa yoo ko déggatee ngay liggéey war ngaa ba liggéey bi saa yoo ko déggatee woon nga toog war ngaa jóg nga toog sa grand place war ngaa jóg mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey nee na maa min abdin qaala laa ilaha illa allah summa maata ala dalika illaa aljanna bépp jaam bu wax laa ilaha illa nga faatu yonente bi nee na nga dugg aljanna sahaaba yi ne ko bi doon laaj yonente bi ne ko qultu wa in zana wa in saraqa qaala wa in zana wa in saraqa allahu akbar waaw yonent waajooju nag moom bu sàccee wala mu njaaloo nag mu ne même bu njaaloowe bu sàccee tamit dana dugg aljanna allahu akbar kon doomu ndey yi nañu xam li ñu am nañu xam li ñu yonent bi indil taxawaayu ñetteel yaa ngi seede ne anna muhammadan rasulullah baat yooyu ngay wax muy baat yoo xamante ne yaa ngi seede ci sa xol ne muhammad mooy sa ndaw muhammad mooy sa royukaay mooy ndaw li yàlla yónni ci yow loolu lan la la war jural kon lépp lu la yonent bi indil din ko jël lum la tere dinga ko bàyyi fa huwal muballigu anillah moom yonent boobu moom la yàlla yónni mu jottali message bi message bi nga xam ne moom yàlla moom la bëgg mu yegsi ci nit ñi moom sallallahu alayhi wa sallam moo ko yegsil ci nit ñi ba ñu xam li yàlla bëgg jaamu yàlla gu ñuy def ñu xam ne nii lañ koy defee moom sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko jàngal ñu war xeeñtu wala topp ay waxam moom yonent boobu ak ay jëfam ndax moom la yàlla moom la nu yàlla royloo yàlla moo ne nu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon baat yi ngay wax ci noddu bi ashhadu anna muhammadan rasulullah li muy tekki mooy man mi seede naa ne muhammad ndaw la lu yàlla yónni lépp lu ma indil dinaa jël lu ma dinaa bàyyi fu ma jaarloo dinaa fa jaarloo lu ma waxloo dinaa ko wax lu ma def loo dinaa ko def dinaa ko topp ni takkandeer di toppi jëmm di ko xeeñcu ci njubam allahu akbar ndax ëllëg ma mën a dëkk ak moom ci aljanna firdaws dinaa moytandiku lépp lu matare ñeenteelu taxawaay bu ñu war a taxaw ci noddu ginnaaw ashhadu anna muhammad rasulullah dañuy wax ci noddu hayya ala salaa hayya ala salaa loolu lan mooy maanaa bi mooy xallu muy la sola ngalawaay jóg leen jëm ci julli axil karim asalaatu hiya wasiyatu rasulullahi sallallahu alayhi sallam julli gii ñu lay woo mooy mujjantalu ndénkaane yonent bi sallallahu alayhi sallam ba mu tëddee ci lalu sukkuraat sahaaba yi wër ko mu naan leen assalaa wa ma malakat aymaanukum assalaa wa ma aymaanukum assalaa wa ma malakat aymaanukum ba kenn déggatul gémmiñ gi muy ŋaang di kenn déggatul wax ji mu ngi naan maa ngi leen di dénk julli ak lu seen loxo ndeyjoor yi moom maa ngi leen di dénk julli ak lu seen loxo ndeyjoor moom ba kenn déggatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax kon ab jullit na wattu julli julli mooy gën a rëy ci cadeau bi yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu yàlla yëpp yàlla indil na ko yonent bi ci kaw suuf ba mu des julli julli yàlla mu ngi ko ko joxee ci kaw asamaan yàlla rañaane la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jóge Makka jaar Medine dem baytil maqdis jóge bay baytil maqdis dem kaw asamaan ba mu dajee dajeeg sunu borom jalla jalaaluhu wa azza ci asamaan yi juróom-ñaar yàlla jox ko julli kon kado bu tol noonu nga xam ne moom la ñuy ràññee diggante jullit ak yéeféer al ahad allazi baynana wa baynahum assalaa li ñuy ràññee diggante jullit ak yéeféer mooy julli kuy julli jullit la ku bàyyi julli ko kooku yéeféer la juróomeelu taxawaay yaa ngi wax hayya alal falaa ñëw leen ci texe gi ci texe gi ñëw leen ci jaamu yàlla goo xam ne bu ngeen ko taxawalee texe texe mooy nga mucc ci safara dugg aljanna loolu mooy texe texe goo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala wax na ko ci alquran hafizu ala salawat wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa aqimi salaa tarafa annahaari wa zulfan min alleyli inna alxasanaat yuzhibna alseyiat zalika zikra lizakirin ay aaya yoo xam ne du jeex wa aqimi salaa inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar wallahu yaclamu ma tasnaun kon wuy ji woote yii lu jaadu la lu war la rawatina alquran ne yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa li rasul iza daakum lima yuhikum kon ndoomu ndey yi mooy ay taxawaay yu ñu war a taxaw seetlu ci nodd ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaalu na yàlla nangul ñu nañ yàlla jéggal njuumte yi na yàlla tabaraka wa taala def nu ay doomu aadama yoo xam ne saa yu ñu déggee nodd danañ bàyyi lépp lu ñu jàppoon wuyu ji wootekatu yàlla bi jazakumullahu xayran